Maimouna Ndour Faye nekk journaliste nekk it patron de presse bu 7TV ni ki rek dem ci guddi ci alxames bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weexu février ay été sauvagement agressé et poignardé ci buntu këram nag la mbir yooyee daal di xewee loolee nag buñ sukkandikoo ci journaliste Mamadou Awa Ndiaye mi nga xam ne moo daal di publier boobu la information ci page Facebook am daal di cay boole ay image yu Maimouna Ndour Faye ñuy wane rek ni nga xamante ne situation ba nga xam ne ci la daal di nekk ginnaaw agression yooyu ba tey rek muy xamle ci yan circonstances rek la ñu daal di agressé kooku di Maimouna Ndour Faye moom Mamadou Awa Ndiaye di expliqué ni agresseur yi dañ ko doon xaar ginnaaw émission ba nga xam ne sax doon na ko def ni ki démb ci axamees bi daal di koy séq ak nga xamante ne si nag moo di Farba Ngom moom moomee di na Ndour Faye ba mu egsee ci buntu këram nekk ba wàcc ci otoom ay booru deux heures jàpp trois heures du matin ci la agresseur yooyee nag daal di ñëw daal jëf ju ñaaw joojee ba tax Maimouna Ndour Faye daal nay perte nag deret ju bari ba tax sax nak ñu daal di koy yóbbu urgence ci hôpital militaire bu Wakam foofee ca TFM ba tey Mamadou Awa Ndiaye nekk kolek wala sax nag consoeur confrère bu ki nga xamante ne si moo di Maimouna Ndour Faye di revenir rek ci accident bi nak la demee moom ba tey mi xam na rek ne après émission bi moom Maimouna Ndour Faye dafa daal di delluwaat ca këram ba mu daal wàccee ci otoom rek rek kenn ku ñëw yoxu li nga xamante ne si nag moo di paaka daal di koy malmeni wante it daal di koy poignardé à trois reprises moom Maimouna Ndour Faye ba muy wàcc oto bi sax dafa nekkoon di wax euh, téléphone nag nga xam ne nag moom la doon waxal euh, téléphone kookee sax nag bi mu déggee mbir yi moo daal di mujjee rek daal di woo ñi nga xamante ne si nag ñoo di ay mbokkam ak ay jegeñaaleem ngir rek ñu daal di koy ñëw secourir ginnaaw bañ ko yóbboo hôpital nag ñi nga xamante ne si ñoo di médecin yi ñoom nag ñu ngi dalal di xamle sax ne kookee di Maimouna Ndour Faye jamono ji nekk il elle hors danger wante il souffre d'atrocement de traumatisme ñu koy ñaanal yal na yàlla may taneek jàmm ak